Niass moo gënoon mag ci conseil municipal bi bu ñu daan voté di élire maire moo daan présider séance bi muy nit ku baax di rassembleur yàgg ci politique nekkoon parti socialiste ku ne parti socialist rek xalaat nga Doudou Issa mu nekkoon nag rassembleur doon ñu jàppale ci liggéey bi nekkoon pour ñun conseiller papa mag lépp daal euh, kon tey conseil municipal ville de Dakar ñàkk na commune Biscuiterie tam ñàkk na waaye conseil municipal bu Dakar aussi ñàkk na ndax amoon na njëriñ lool ci ñun te daan nañu jàppale ci liggéey bi bu baax ma koy jaalee famille am d'abord di ko jaalee parti socialiste di ko jaale conseil municipal bu ville de Dakar ak bu Médina ak euh, euh, commune Biscuiterie yi di ñaan yàlla xare ko àjjana